tax ko bari. zéro boo ko multiplier. mais tey ni ñu ñëwee nekk say ni yéen tiitoo leen. non man j'en fais un non événement seulement ah, man man man j'en fais j'en fais un non événement xam nga lu tax. Hmm. ñun nañu woy si moom nekk tuuti na leen non événement la man vraiment man man Maïté man. comprendre nga mais Maïté Maïté bu booloo ak Bougane. Euh, booloo ak ak Bougane n'avait pas de Bougane amul woon parrainage. waaw amul mosul am parrainage. mosul am mhm. Bougane daf ñu nar sant. xam nga lu tax mu sant leen waaw. Bougane depuis des années mu ngi bëgg bokk ci élection. mais bokk bi nag légalu de bokkul demal boppam dafa langaamu ci ñeneen. mais parce que. li muy woote nekk onzième position. li muy woote ki jëfewu ko. gis nga man bu ma nekkoon euh, Bougane Gueye Dany hmm. ma yàgg tëkku Pastef ñu permettre ma Pastef nag aka ñoo baax ñu permettre ma ma bokk damay ne j'y vais seul. waaw pour sa doole. j'y vais seul lu ma am jël foofu sénégalais yi dañu xam ne kii góor la. est-ce que du mooy li mu doon wax. est-ce que loolu du ñaaw. mais même bu ñaawee au moins les gens sauront que tu as osé. tu as osé. est-ce que xam ngeen lu Bougane ni en politique. déedéet. xam nga lan buñ ci mënee jàppale. yow nga ne nga ah, ne su ko wax am solo da ko waaw may leen ma may leen ma. may leen ma may leen ma may leen ma maa la ko. waaw ngeen di dégloonte nag su may tëdd wax da ngeen koy déglu. non non xaaral balaa moomoo di wax pare. non non xaaral. que c'est un vrai homme. nga xam ne góor c'est un vrai homme comme ce que le Ousmane euh, le président Ousmane Sonko a montré gis bi mu méttee dafa taxaw dëggal boppam. man tey su ma doon toog présenté émission bi rek ma seetaan. ah, ah ngoone yow amul amul il faut que def ci ginnaaw de la justice tey amul na kii amul ci nga nag a xam sa bopp. man su langaamoo ci ginnaaw kii dinaa am. dinaa am amul amul bugaan yaa ko ëpp poids politique. non loolu moom dëgg la moom. Ah? combat parce que man démb yëngal naa jam ñaar duma demee grand théâtre dama ko yëngal moom dëgg la vraiment vraiment bàyyil foofu ngoone ngoone mi ngoone di def les échos de la justice di dëbb réew mi ba mu mokk. Ah, ñëwal ñëwal <laughs> waaw Fadilou Keita laa invité dinaa si ñëw ci kanam. est-ce xam nga Bougane nan lay peser politiquement. nan lay peser. la seule fois bi Bougane am opportunité pour bokk ci élection muy fii Mermoz Sacré-Cœur Bougane est sorti avec six cent soixante quinze voix. ci pourcentage mooy ñaata comme ñu ñu calcul. Ah. <laughs> 675 voix eh, tuutiwul doo ko yokk tuuti. 600 loolu la moom dëgg la loolu la résultat bi Bougane élection bi mu sa bokk 675 voix la am man suñ toogee bañ ne suba la élection yëmbal noor laa dëkk. Mhm. ñu toog bañ ne ma génn man wëri nit ñi ma xam dinaa am au moins 1000 man. te ma gàddu sama dëwlin jiloor bi. te dem seen timsha bi rek ëpp na loolu. waaw ah, mais am maa la may li ci yow sama dëwlin jiloor bi <laughs> la <laughs> Marie waxoon naa la fi benn jour nga foog ne damay damay ree waaw parce que quand les gens parlent de duel dama gis ne man duel amul. Mm-hmm. soo ko waxee dañ lay wax ne da nga far fekk loolu ji nga booy tollale dañ lay wax ne toppandoo sa maas diiroo ko yeman mbagg. pom mm-hmm. du neew tey mënoo nekk fi yow mosoo bokk ci euh, euh, élection pourcentage bi nga am kii wax na ko léegi. nga bëgg fekk koo xam ne dafa rampe ba ñëw politiquement sampo nga ne kooku ngay tollool mhm. su waxee nga wax su jëfee nga jëf alors ko jëfi ni bokkul tey man su ma otee Grand Théâtre mën naa wax ne li may xeebu xeeb dina fees mhm. moom oote na fi Grand Théâtre dàq ko ne tam xarit bi la ba tey ba léegi wootewu ci temps yi fekkee ne su la soo otee boo joxewul paas mhm. wala su euh, euh, journaliste si pare nga envoyé leen bis na leen dugg na ci doo ñëw kon kooku mun ma jàpp da ne duel xam nga bokk pour bokk ak exister parce que ça boo waxee nit ñi reprendre la. Mhm. loolu ça pas dire que ne tu es un leader politique un leader da construire. Mhm. un leader politique dafa am fooy fooy aw c'est pas que ñii peut-être yàlla moo leen awale ñu jaax kaso seen destin la bokkoon mais leader politique da nga koy mën ci da koy mën da nga koy mat. da nga koy mat mhm. soo waxee ñu ñu da ngay teg lu xeere comme sëñ bi ci jam ñaaju waaw noonu la sampee. Ah, ah, di wax dëgg tamit dëgg kay ma ci ci leader politique kay moo tax dama fiy jaaraale pour wax Thierno Alassane Sall gis nga un leader politique tey boo demee bay jàkkaarloo ay mag ñoo lay seetaan di nga ñun li ñuy wax ni nii waruñu xee xeebu xam ne tax dafa am ay kilifa yoo xam dañuy toog di la seetaan te li ngay wax dañu koy déglu li gën a bon ci nit nag mooy ngay wax li ngay wax nekk ay kàcc nit toog fen naan waajee moo mën a fen rafetul si koo xam da nga bëgg a jiite nit koo xam ne saa booy waaj a wax ñépp xam ne yow mi soo waxee kàddu yi ngay wax du dëgg eh, nit war nga ko mën a mën a mën a mën a mën a moytu Thierno Alassane fii lañ ko accusé ki ko accusé mu ngi fii man balaa mu doon dem tey euh, section de recherche wala muy dem ci procureur di plainte pour ñu leeral mbirum ONAS bi waroon naa mën a plainte Farba Ngom mi nga xam ne daf kaa tuumaat ci kanamu góor yépp mhm. setal boppam ba tey déggoo ko mu wax ci tey dara mënu am sénégalais yépp xam ne lii ñu wax ne projet 2050 la mi ngi nii yow page yi mënagoo am benn fan mhm. pour lire ko benn jour mënoo ko jeexal benn semaine mënoo ko jeexal danga koy liir càmbar ko xool-xool nga bëgg toog ne ñii nee ñu dañuy toog ba 2050. Mhm. mi ngi mel nga takk sa jabar ne ko tey du doo fanaan damay bàyyi ba ay at nga doog fi fanaan noonu la mbir mi demee kilifa booy wax da ngay wax dëgg mënoo di am sa télé am sa rajo teg say per jom lu nit wax nga ñëw ne da nga koy déconstruire te li ngay wax tegu ko ci dëgg booy fen sa xanaa war ngaa mën a xool ni ngay fene fen bu ànd ak harmonie. Mhm. donc on ne nous parle plus de duel de mbir yi. li ñuy wax mooy nu ñuy jéem a xool pour Sénégal jëm kanam te ñun ñëpp dañ ci am responsabilité. Mm-hmm. muy journaliste muy chroniqueur muy politicien muy mécanicien muy maçon ku nekk dañ ci am part de responsabilité. tey bu Sénégal jëmee kanam du pour Diomaye ak Sonko c'est pour toute la population. Mm-hmm. moo tax il faut nit ñi jëlaat seen responsabilité da bàyyi wax yi du dëgg. mënoo mm-hmm. toog bu teyee nga ne men bu subaa nga ne saa ginnaaw suba sax nga ne dëwlin léegi mu il faut que ñu arrêté ak moom tam une bonne bañ ko bañ ko fekk si parce que nit bu mënee toog may ma moomoo nit bu mënee toog ci bureau ñu ne ko yow bàyyi wax nga ne ko non man damay wax même bu ñu may saaga sax naa existé rek mhm. bu nit ñu xamee loolu toog di wax ci yow dañ lay may buzz il faut que ñu arrêté jéem a xool ñu jëmale ci réew mi kanam nañu xool nu ñuy invité ñu mën a wax ci ci Sénégal 2050 jéem a xool nu ñu waxee ci loo xam ne sénégalais dinañ ci mën a gis seen bopp te mm. bàyyi mag ñi nga xam ne lu dul dëgg duñu ko wax dëgg la de mu ngi mel ni comme tey nga dem ca marché ba rek bëgg maa wax ne am na dëwlin bu gën ci loor dama naan la mm, loolu amul juloor juloor moo gën ci dëwlin yi moom moom la ñëpp di jëfandikoo te ku waay jaawal ne projet amul na nga fa jaaraat ne projet bi am na nga fa jaaraat ne juloor a gën ah, kay un point c'est tout ah bu kenn laal sama diwlin ci ñoom mais quest que c'est que ça ni ngeen di def rek mu ñu ñu liggéey pare proposé projet ngeen am projet amul. ba pare fi nga ah? dëkk sax mën a faa gagné maire yow boo di ndax doo ne Saliou nga bëgg nekk ne t'énerve pas je vais gérer je vais gérer cette situation ne t'énerve pas euh, ah Maïté waaw dañ naan njiit waaw quand on parle d'un leader njiit da ngay am ñu ne l'humilité set la gloire gis nga boo humble lu bëgg doo ko mën a def boo ëmblul doo mën a taxaw nga ne man maa waxoon ah juum naa gis nga ça n'enlève rien à leur grandeur ñu ñëw ne juum naa wala nga noppi boo mënul ñëw ne juum na da ngay noppi nga bàyyi nit ñi doxal mais man ce que je ne pas comprendre mooy ñu waxtaan jam ñaajo pareeguñu nit ñi génnaguñu ci saal bi yow nga woote pour wax looy wax danga gis. comme d'hab cuune. il faut que les gens sachent raison garder. am na loo xam ne da ngay jël temps nga consommer lañ la jox nga xool ngoone wax na ko doo jékki-jékki rek man mii euh, tu prends seulement les grands axes nga xool par rapport ak ñu projet bi ñu amoon parce que loolu moo tax ñu ciy mën a wax parce que y a mm-hmm. yow amoo jëloo temps nga lii ko lu ñu ci wax nga bëgg a tontu li ngay tontu mais si liñ koy teg amul benn base te manque d'essence euh, de de base boobu mooy tax nit ñi dañ lay xeeb te njiit nagul wax lu ñu koy xeebe muy bugaan muy Thierno Alassane muy képp ci euh, ci ci opposition bi nañu bàyyi di def luñ ñu leen di xeebe Ousmane Sonko bu muy opposé wu même boo ko bañee bañ ko bañ ko bu waxee da nga naan waa góor. ah faawoon na ko nag da parce que da ci daan teg da ko daan teg fu leer du waxantu. il n'est pas dans la demi-mesure. waaw li rapport bi naan fu leer laa ko teg. Mm-hmm. waaw rapport bi da koy wax mais gis nga. Salma waaw. dama bëgg euh, li Ngoné wax ak mhm. euh, Maïté dafa am solo léegi comme am na euh, des sénégalais yoo xamante ne ñoom dañuy gis lu weex ne weexul dafa ñuul wala dafa xaw a marron yàgg nañu wax projet amul ñu am ñu ñëw présenter leen projet ñu ne ñu du projet Sénégal dañ koo jëndi ki ko def sax déjà nitu Macky Sall la woon mhm. maanaam ñun game boobu lañ tolloog ñun pour le léegi il faudra que ñun ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais yi comme je le dis Euh, bokk na man ngoone ci ñaan yi may ñaan chaque jour su ma xëyee le président Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko yal na leen yàlla lafal cat. yal na seen diggante gën a dëgër. dama koy ñaan c'est pas parce que maanaam journaliste laa waruma ñaan loolu déedéet sénégalaise daa citoyenne laa bu dëkk ci réew mi te seen ànd mooy suñu njëriñ parce que tey maara day taali bu ñu séparé woon on va recommencer à zéro te ñaanuñu yàlla loolu. développement lu ñu bëgg te ñoom ñaar ñu ànd tey sénégalais dañ ci gis seen bopp léegi booloo nañ def nañ benn say présenté nañ un projet aux sénégalais euh, maintenant c'est au patriotes euh, mami ñoo war a maanaam man je me dis le reste ma am nañ doole ci réseaux sociaux yi am nañ doole ci Sénégal ku ci nekk war ngaa jël benn pàcc ci li nga xamante ni moo di projet bi ngoo ne am communication boo xamante ne danga ko ci doxal tey damay live wala damay waxtaan man ak sama ay gars jël naa pàcc bi nga xamante ne dafa ñel wàllum industrialisation beneen pàcc boo xam ne dafa ñel wàllum agriculture beneen pàcc boo xam ne dafa ñeel wàllum souveraineté parce que pàcc bu ci nekk rek ñoom waxtaan nañ si wax nañ naka lañ koy doxalee waxtaan nañ aussi ci naka la àndee budget bi nga xamante ni moo koy doxal. Mhm. il faudra que ñun aussi sénégalais ñu jël suñu destin en main. ba ñu jël xamante ni li may naan. est-ce que duñu mujjee forcer leen yóbbu leen dalal xel bàyyi leen fa. Hmm. parce que comme ni ko Maïté waxee nit kuy def euh, benn vision di présenter benn vision pareegul yow nga programme sa conférence de presse ça veut dire que yow tu n'as même pas écouté nit ki di wax parce que nit man. <laughs> maanaam démb bi euh, Bougane di wax man Salma déglu naa ko dem bi moom mais ay reetaan damay def nag fi ma koy déglu parce que damay xam ni kii du ma waxu nit. waaw mais daf may reetaan loolu neex lay doon parce que déglu naa vision bi. en fait dama jot assez d'éléments ba après yëf yi dafa fees sama sama bopp après pour ma divertir xëy na ma dem déglu Bougane donc. Ah, <laughs> euh, waaw déedéet. yow boo bëggee def business da ngay def business plan pour mm-hmm. mm-hmm. dama ne projet nekk lu ndaw. Mm-hmm. boo bëggee def commerce wala benn mbir boo xam ne da ko da nga def business plan pour xol lii. nii laa koy defee nii laa koy defee loolu du benn fan du ñaari fan. yow yaa ngi liir nga ne da ngay da ngay dénigrer. Mhm. wala da ngay teggi loo xam ne ñii wax nañ ko ndaxte la ñu wax nekkul dëgg. takkoo say verre ba ka nga àndal bëgg la jël ay leen tam jox la ko kon ça veut dire que tu n'es pas soo koy wax si da ngay ànd ak benn sérieux boo xam nit ñi. Mhm. donte dañ lay déglu te neexu leen sax dañ lay déglu bu ñu paree am benn xam-xam bu ndaw boo xam ne jëlee nañ ko ci. Mhm. ba mu ñu toogee moo xam nga neex leen moo xam nga naqade moo xam ñu ànd ak yow xam ànd ñoo yow bu ñu liiree dañ xam ne ah waa kat neexul bañ de waaye li wax dëgg la comme ni ko Mayta waxee mm-hmm. Ousmane Sonko ba muy opposé dina wax yoo xam ne da ngay gis koo xam ne da wax mais bu toogee su naan waxee nit ñi ne ca wala wax nit xam nga jëm bu mm-hmm. yàggee da ngay soof communication bu bari baax na mais da ngay xam li ngay communiquer maîtriser li ngay communiquer mm-hmm. soo xamul 23000 allez xamoo 23000 retour yaa mën a yam dafa am mbir yoo xam ne doo ca wax dangay noppi bàyyi ñi am xam-xam wax ci nga mën cee jëlee soo ko mënul nag nga noppi mm-hmm. te xam ne du lii moo la yóbbu assemblée nationale voilà trop de communication tu la communication comme le cas de Boubacar Camara bi ma koy wax léegi ah, mm. nekk na koo xamante ne demoon na ci élection yi mm. amul maanaam sénégalais faluñu ko mais est-ce que dafa war a mën a tax mu toog ne man damay tirer sur tout ce qui bouge il l'a pas fait bi ñu décidé assemblée nationale daf ne c'est une bonne décision tey gis nañ posture bi nga xamante ni am na ko ba ñenn ñi di wax naan que sax est-ce que nu dul ni dafa bëgg a rejoindre le PASTEF c'est-à-dire gis ni kër kii

droit def erreur. amoo leen droit kenn di leen xool yaa ngi ko wax ne yow tey rus nga jàkkaarloog nit. mu ne la projet bi ñu jaayoon baaxul. waaye tam ci loolu dafa ànd ak communication. Mhm. ci kilifa yi dafa am nenn noo xam ne noonu la ñu wax di waxee. Mhm. bu sa yaram tàng tàng tàng ba nga wax duñu lay xeebe. dañoo nekk ci dëkk boo xam ne dañoo leen wóolu yéen jox leen ngeen jiite réew mi. dans ce cas nag il faut seen ay kilifa tam am benn comportement boo xam noonu la ñuy waxee. muy kaawu Abbas bi ñu wax naan bi na jee di na même bu fekkee dafa sàcc moo tey xaar ma pare d'accord ci loolu parce que tey bu ñu la joxee nombre temps dafa am ñenn ñoo xam dañuy xool ci yow ah am ñoo xam dañuy xool sa faay bu ndaw pour langaamu ci loolu donc il faut ngeen revoir seen communication xool ni nga xam ne ngeen waxee te ne tam fi ngeen jëm nekk lu yombee ni nga ko xalaatee ko ko may sax mm-hmm. parce du ko waxee woon ma ne gis nga nit bu ko bëgg-bëgg ba doo ko wax dëgg te nit kiy jiite dafa jël li nga xamante ni moom la ñëpp bokk muy Sénégal yor ko mu nekk ci loxoom donc dafa war a am taxawaay gisa nee na nit peut-être mënoo nekk irréprochable certes mais ñii ils ont l'obligation xam moo tax